jazz, loko nyo gam jazz. delo jazz, loko nyo gam jazz. ku kau ak presiden, bu mu ànd ak yow bu mu tiit saa jox esprit gagnant ci yow ku ànd yow bu mu président esprit gagnant ci yow ku ànd yow bu mu tiit saa jox esprit gagnant ci yow yow la ñu àndal président yow la ñu àndal saa ñox seen yow la ñu àndal président yow la ñu alaaji saa ñox seen yow la ñu àndal président yow la ñu àndal saa ñox seen yow la ñu àndal président yow la ñu alaaji saa ñox seen delloo Cees loxo ñu gëm Cees prési bul dute ca skaya ko moom du kenn ci ñoom ku mënte suñu gox ñoo la tan ci ñoom zone SBI borom raw nga leen sànni cravate jëlal laaji saño yaa ñu doy ca skay amuñu sa fay bilaay yaa jëro way kontaan nañ albaraka kay fi ñu jëmee gën foofu fi ñu jëlee kay ku fi xëccoo ndax xamul la topp fële lu wëccu ki neex jarul waril neen fi yaa fi ne ñoom noo du benn président El Hadji saa ñoox seen président wallaay ñun amuñu sa fay delloo Thiès loxo ñu gëm Thiès ku ànd ak yow bu mu tiit président esprit gagnant ci yow ku ànd ak yow bu mu saa ñoox seen esprit gagnant ci yow ku yow muti président esprit gagnant ci yow ku ànd ak yow bu muti saa ñox seen esprit gagnant ci yow ñun yow la ñu àndal président yow la ñu àndal saa ñox seen yow la ñu àndal président yow la ñu àndal saa ñox seen yow la ñu àndal président yow la ñu àndal saa ñox seen yow la ñu àndal président yow la ñu àndal saa ñox seen ganya chiyo Sanyo se esprit ganya chiyo Ko anda giyo gumuti Ko anda giyo gumuti Sanyo se esprit ganya chiyo Yolo nyo anda president Yolo nyo anda sanyo se Yolo nyo anda president Yolo nyo anda sanyo se Yolo nyo anda president Yolo nyo anda sanyo se Yolo nyo anda president Yolo nyo anda sign yourself. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax baax a baax di leen ñaanal yàlla yal na yàgg di nuyu alaaj alaaji Sañox Seen ñoo ngi lay dalal jàmm ñoo ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla li la tax a jóg yal na la ko yàlla defal te defal nu ko nun ñëpp e eh, waa koñ bi nag dañoo am seeni i yoo xam ni ite yu ñor xomm la ci ñoom te seeni i ay jigéen lañu bëgg nañoo wax sax waaye lu ñu bëgg wax yépp lott nañ ci man koo wax waaye man ñoom ñii ñëpp seen kilifa laa suñ ma delegee ni ma waxal rek xam nañ ni lu ñu bëgg a wax lépp danaa leen ko waxal lu ñu bëgg a wax nag mooy mbuurkat xam nañ ni li fi manqué bari na parce que koñ bii bërki démb rek matagul semaine la ñu naroon a rey benn xale bu góor fii ba nangu moto bi yóbbu ko ci sama kanam julli naa ba pare génn fekk xale bu góor bi mu yuuxu di daw di dem ñaar ñi ko doon bëgg a agressé daje ñoom mais booba xaw ma ni woon ñooma waaye mbuurkaat soxla nañu fi ndox bëgg nañu fi courant bëgg nañu it suñu kayit yi ñu am ko soxna yii bëgg nañu ku leen jàppale ñoom itam ci seen procès yi ñuy def ñu fas yéenee liggéey ñoom itam booloo ñu ngi booloo na ñu nekk benn bëgg nañu ku leen jàppale ci as ñu def ko ci seen société bi mën a liggéey futteeku fas jom di liggéey comme yàlla àddina la fii ci mbuurkaat nag nga fas yéenee ànd ak waa mbuurkaat pour ñu jàppale la ci maire bi insha allahu rabbi loolu ñun duñu ko bañ képp ku taxaw am sa Pastef te bëgg a liggéey ñun danañ la tàllal sa loxo dinañ la tàllal suñu loxo fas yéenee jàppante ak yow parce que mbuur kaat borom bi Pastef fa fi nekk borom bi Pastef fa fi nekk parce que karce la boo xam ni amaguñu dara kon quartier bi moom dañu leen di wor rek waaye ñoom ñu wor kenn parce que ñu ngi toog képp ku leen tàllal loxo te futéeku fa yéenee liggéey dañoo ànd ak yow kon nag Sagnokh Sène na nga xam ni mbooloo maa ngi nii loo bëgg te bëgg ñu jàpp la ca mbooloo mi dina ñu la ca jàppale ca loola insha allahu rabbi ñu ngi ñaan yàlla nag li la tax a jóg yal la ko yàlla jox muy maire bi yal na la ko yàlla jox ci darajey Muhammad rasulullahi man mii di wax ak yow sama ñaan gu am solo la ndax léggéey naa ci biir maam xaadi kër maam xaadim rasool ba am naa attestation soxna saybata moo ma ko jox soxna saybata ay dara kon nag noo ngi ñaan yàlla seen tànk yi li ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal waaye sunu soxna yu tedd yii ku leen jàppale jàppale ngeen nun góor ñi ndax ñoom dong la ñu am bàyyi nañu seen kër ndey yi ak seen kër bàyyi di ko toog fii di nu wéttali di nu jàppale lu nu am ci sunu poos yi jox leen ko ku fi ñëw itam lu waaye am jàppale leen ñu mën a liggéey dinañu ànd ak yow ci ni nga bëgg ak fa ko bëggee wasalaam. asalaamaaleykum maa ngi nuyu El maa ngi lay nuyu di la dalal di la yéegal ci sa yéegukaay. na olo dafa ne kay man duma wacce dama yegal dila yegal nak bu baxte yalla nga yek te da nga yek inshallah allah tam euh, sama dom yi nga xamne ño ñew top suñu élage nga xamne monsieur le maire ñu ngi len di nuyu di len sante di len gëreum di nuyu waa mbur kaat yi nga xamne nak nag ñu am jëm lañu jigéen ñu am takku jigéen ñu bëgg li ñuy def lañu ndax élage jot yombul yàlla dimbali na ba nga dugg si fii Mbourkat Mbourkat doon quartier boo xam ne ñu ànd solidarité te bëgg nag lu ñu def te lu ñu wax seen lu ñu mën ta wax dëgg la ci ñoom ciment lañu benn yoon lañuy tooy El Hadj Mbourkat da nga ñëw fii ñu fas yéene nag ànd yow ànd bu dëggu lépp lu ñu yor na ci suñuy kàdd suñuy doom ak suñuy jëkkër ak suñuy ñëpp dëkkandoo yi ñu fas yéene la ko jox ndax Mbourkat mairie bi soriwu fi boole ñu mbuurkat ci lenn ñun xamuñu lenn ci mairie bii mu doon nag lu metti jigéenu mbuurkat mu doon lu metti borom kër nga xam ne ñoo nekk mbuurkat ñu fi yeewoo suñuy doom yi ci yeewoo amuñu dara ci mairie bii te defe naa ne mbuurkat ci mairie bi la war a bokk te am fi nag kàddu am fi lépp nag war ko am mais mënuñu fexe ba am ci loo xam ne lii ñu ne lii kat diw moo ñu ko defaral du ma tudd tur ndax ñëpp a xam junj doy na borom xel ñuy bëgg yow élage denk nañ la suñu bop ndax dafa am lo xam ne wax na dëgg dafa neex kat courant bi mbour kat amuñu ndox ci ay teen lañuy naan mbour kat aide yi ñuy joxe ci maire bi gisunu ko keur bo soxla pour nga am ko di nga dem gannaaw suba suba ba nga sonn toog mbuurkaat mënatu ñoo tabax kat daal kat bari na ay doléance yo xam buñu gisé ku melna yow na nga tal nañu loxo dañ lay nuyu bu baax nak dañ lay nuyu bu baax te fas yéene and ak yo and nawle and gor ak and nawle te xam ñun li ñu la wax ñu dalala tay ji yalla ma tim na xam do ko recc ndax sa soxla tay mo suñu soxla sa yitte mo suñu yitte ndax gis nañ la ndax séeréer amul caaxaan sen bima deg dégg sen bima deg amul caaxaan te kenn du doxewoo ci caaxaan du doxe ci caaxaan séeréer ah ñu ci xam caaxaan de bari wul malay ñaan nak tay tay ji ñu fekk suñu mag suñu rak ji di ngone nga xam nak mo ngank botay bi muy ci def lu rafet ñun ñepp nak fekkoo fi nak lu bari waye nala nga japp sa xel ne ñepp ñu sa ginaaw ñepp ñu sa ginaaw inshallah sama càmmiñ bi di faal bam fi ñewé wax ñu lool ñu ne lool dañ ci sawar yo tam ma dila la dila ñaanal ndax kañu andando xex lu fi nek ku la ko wax kooku la bëgg ko bëgg sa gox yokk te bëgg nañ mbuurkaat nañu dépassé fi mbuurkaat dafa retard te waruñoo retard seen caali tàllal nañ la loxo te incha rabbi bu bos baa na nga xam ne waa mbuurkaat fii lañ taxawee te sa ginnaaw la ñuy taxaw mbuurkaat du ay jigéen ñuy wor mbuurkaat suñuy borom kër yi ñoo ànd mbuurkaat ak suñuy doom ñoo ànd xamal ne daal yow macha allah li nga bëgg yaa ko xam nag yàlla na ko yàlla def te li nga bëgg diñ ci ñëw te di nga ci di nga falu incha allah ndax yàlla du ànd ak koo xam ne dafa bëri caaxaan te caaxaan yi bëri na fi mais yow nag li ñu dégg ci yow rafet na tey lañuy ñuy soog a gisee nag ndax nee nañu mbaax du nëbb ku baax du nëbb te dégg nañ ci yow mbaax xam nañ ci yow mbaax ndax jarul présenter ku baax bu ne la jàkk nga xam ne kii fu mu fu mu jóge ak fu mu nar a jëm dénk nañ la suñu bopp nag fii ci mbuurkaat te doo mer bu soobee yàlla ñu sa ginnaaw bu boobaa incha allah ñu ñu nag la incha allah jërë ngeen jëf. de yàlla teewaay bi rafet na li ci am nag euh, li ci gën a solo mooy tey gis nga tey El Hadji Sagnax Sène dafa def loo xam ne bi ma ñëwee daf ma gën a marqué maa koy woon léegi ay ay photo ma ne président Macky Sall dañ doon toog fi nga xam ne mooy hôtel Relais de Kaolack ñu jox ma ko fu nekk ma photo man je suis de la presse mais. gis nga lii mu am solo li mu def lu am solo parce que moom la doon def ak ku mel ni tey El Pistrero moom la doon defak ak Mbaye sama kanam moom la doon def ak tey euh, ki nekkoon forces armées euh, xaw ma nu ñu koy waxee. Augustin Tine moom moo doon jënd photo yi parce que il était dentiste moom dentiste la woon yor waa Sonatel à Kaolack kon xam naa ne yàgg naa Kaolack ku def ci presse bi lu mos 33 ans lii mu def dafa am solo. wa may wax rek ne vraiment sen taxaway bi contane na ci trop parce que nit nit mom lu mu am rek moy li damay dellusiwaat nak sunu gox yeen ñep di jital jigen ñi nga xamne tay amuñu lu dul ñoom waaw waaw jigen ñi ma ngi leen di gërëm ndax xamna ne mom wax deug yalla bu ton ñom tay lambay ñaaw ñu wax na ñoom tey euh, monsieur sen ñi ngi leen di ñaan ngeen dimbali ñu jappale ñi jigen ñi ci fond bo xamne man neen ci def tay li nga xamne moy sen natt yi nii def di ci mën a dimbali seen i borom kër ak ndax di ci mën a jàppale seen waa kër yi moo tax ma ne woon naa ñëw wax leen ko parce que jigéen ñi loolu rek lañ am tey dañuy teg dërëm di teg ñaar dërëm kon nag bu ñu defee loolu tey ñu ngi leen ci jàppale loolu laa wax bu dul loolu tam sunu quartier bi gis ngeen ko léegi sax yàlla dimbali na lamp yaa ngi ñëw mais am na foo xam amulul lamp amuñu courant tey mbooloo dañuy wax ne mooy doole soo leen mënee dimbali benn côté bi nga xam ne na ndox am na fi courant am na fi bu ñu demee côté def fa loolu dina am solo may rek di len remercier baña guddol nak parce que doomu adama mom euh, wax da fay bari waxat mana wax lay doon te yoon bi da gatt betel bi rek motax ngeen ñew xagna door leen fi fekk mbolo mi fi wara nek ma ngi leen di gëreem di leen sant di wax elage sen monsieur sen na nga japp teewu bàyyi na nga japp teewu bàyyi parce que gis nga li moy gor gis nga nak mag ñi dañ daan xare waye gis nga li ngay def ni xare la de ñi nga andal ñi ay saaba lañ ñi nga andal ñi yéen ñi ay saaba ngeen ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon taxaw doon xare di bañ di di di di di bañ tey li ngay gis kay kuy bañ ci réew mi boo leen doful nii bañ ci réew mi boo liggéen ñun ñëpp a yem kon nag maa ngi gàttal di leen gërëm di wax jigéen ñi daal ah ñi ngi leen di ñaan loo leen mën a dimbalee ci lu gàtt gàtt gàtt mu nañ def seen kees pour mën koo dimbali ko ñi ngi la koy ñaan xaw ma tey lay doon xaw ma suba waaye ñi ngi la koy ñaan di la ko dagaan jërëjëf merci waa jël leen note lool waaw soxna Ngone mi ñu recevoir ñi ngi lay sant di la gërëm ci accueil bi Mbour nag moom ku fi dëkkul sax xam nga problème mu Mbourkat ndax man mii seen voisine laa maa ngi dëkk Mbour 3 fii en face antenne bi ñu gën ma xam ci madame Fall école route de Mbour laa doon jàngalee léegi man maa ngi diise fayu kanam yu bëri xàmmee naa leen fi comme ni ngeen ko waxee rek union citoyenne mi ngi nii buntu baa ngi nii doléance yi ngeen wax ñëpp ñun dégg nañ ko El saa Sagno seen dégg na ko doole jooju nag yéen yéen a ko ko mën a may yéen yéen a ko mën a jàppale may ko doole boobu mu mën a jël mairie bi faj doléance Mbourkat ndax Mbourkat comme papa bii li mu wax léegi police de proximité sax mën na fi am ndax insécurité bi bëri na fi man samay doom jël nañ téléphone am ba tàyyi côté arrêt tata bi kon doole jooju li ma wax rek yéen a koy may Alaaji Sañor Seen ci kaw loolu ngoone ñu ngi lay ñaan nga monter sa cellule soo montee cellule nga liggéey mbuurkat ba mu mokk au soir du 23 alaaji bu jotee maire bi seen problème faj incha allah xam naa du ma yàgg du ma téye parole bi ndax dafa guddi fi ñu war a jaar dafa bëri ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp wasalaam. bu lii mënee am nag sama caat nañ Cheikh Fall mii moo ma ko def moo ko lijjanti ba lii am fi may gërëm ñi fi toog ñëpp góor ak jigéen. lu mo bëgg seen carte yëpp ngeen lijjanti ko joxal mako sama sama li lii inshallah mu non dal mom non lu mu gën a lu ta yeggee jamm ak salam nga xam ñun ñu way mbur carte ñun ñoy gan ta wax legge te kese nag nangu di bay béy ñoo bëgg ñun jigéen ni nga jàppale ñu ndax suñu ci lu bëri wax nak bari nak la mënul wax mënu wax mënu ma ci lu bëri dégg nga wasalaam joxal ma la mbur carte assalamu alaykum wa mbur carte ma ngi len di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di jital ci nuyoo bi chef de quartier ak imam koñ bi di len wax ni kontaan nañu lol ci dalal bi ngeen ñu dalal fi tay ñu ñew fi degg seen ay tawat a ah, ko xol mbur kadde yaakar na degg li ngeen wax xamni yaram dana gëna daw parce que état Sénégal rawatina maire bu Thiès Ouest ameel na leen bor bor bu rëy rëy ah bor boobu nag damay ñaan yàlla 23 janvier incha allahu rabbi boo leen changé carte gi jox ma maire bi hmm. dinaa ko fay ni ma koy fayee bokk na ci bi ci jiitu godorog bi ñëw taxaw yam fee dina fexé mu romb continent beneen bi boo jigee kees noonu jawar xàll mburkaat fofu dañ ko gordorange mu jàll ku ne xamne ne bu guddee kenn du gennati ndax lamp yi tàkkuñu poto lamp yu doyul lolu buñu ñu bu bu yalla di dinañ ci jub rabu àll yi jaan di mat suñu dom yi lolu buñu ñu di dinañ ci jub ku ne xamne ni ndox mi duggul ci kër yi bala ngeen cee jot di ngeen sonn lool loolu dinañ bokk na ci li ñuy faye bon bi yéen a wax fii sànq ne mairie bi sori na leen boo leen soxlaa këyit di ci toppi ba sonn door koy jot waaye bu yàlla dogalee ñu faru dañ leen wutal centre d'état civil secondaire boo xam ne fii leen ci indi si Mbourkaat macha allah ku soxla këyitu juddu fii ci Mbourkaat du jarul te ngay dem ba ci mairie bi fii ngay dem ñu defaral loolu bokk na ci suñu programme te dinañ ko def incha allah di leen wax ni nag ah seen doom a ngi nii El Hadj Sagno Sène ah, dëkk Mbour ku ne xam na ni dëkk bi liñ fi fekk dara baaxu ci gestion bu jaar yoon te lu ko waral mooy maire boo xam ne dañ koy fal soxla wu dëkk bi day dem tay la ko ñeneen dem yoonam mënut a liggéey moo tax bi ma jugee ni damaa soxla maire bi ànduma ak coalition àndiwuma ak kenn damaa ñëw man kese dem déposer sama candidature mun a def sama list ànd ak Thiessois yi njëkk Thiès Ouest ànd ak ñoom parce que boo àndee coalition lu ñu Sénégalais ay wax ko la abal bët fu la neex ngay xoole fu mu ko neex ngay xoole parce que coalition yu bari dañ naan nañ ànd liggéey ñu mën a dugg ci conseil yi dugg ñu mun a dugg ñu ne leen seen suuf si wala ñu sédd leen laneen mm-hmm. kon loolu moo tax coalition mënta liggéey motax ñu and ñun Ceese ñu nañ leen taxaw defal liste bo xamni liste Cees waa la ñëpp ci gis seen bop muy liste bo xamni wa waa Cees Ouest ñëpp ci gis seen bopp mm-hmm. na wa Mbour kaat mm-hmm. parce que taxaw wuñ leen ci dara lolu gis nañ ko incha rabbi comme ni ko sama sœur sank waxe xadi ni ngeen formaliser wu monté comité mm-hmm. japp liggéey Mbour kaat ba mu mok incha allah boo leen ko défé do leen ko réccu ndax ndam ni dina ñëw bu soobee yalla maa ngi gërëm sama yaay ji ma fa fekk muy Fama Diaw doon nit ku baax nga xam ne ba ñuy nekk ndaw ba tey ñu ngi ne ci wetam waaw mu doon ku baax di gërëm ñu ñu si fekk ñëpp di leen wax ne xañ na guddi na fi ñu war a jaar dafa bari waaye li nga xam ne mair dina ko def bu yàlla dogee nattukaay yi ne ci suñu loxo lépp dinañ ko def li nga xam ni nag mën nañ koo tàmbalee léegi su jot ñu jar ñuy xaar ba àgg ci maire yi mm-hmm. muy lu mel ni financement jigéen ñi dañ leen si jàppale loolu duñu xaar bay àgg ci maire Cheikh Fall lolou yow la koy denk bo jugee fi wallahi djigen ñi fi nek ñepp nañ leen recenser uh-huh. ñu fexé ñu bokku ci comité ñu jàppale leen ci ay financement loolu du ñu xaar ba nek maire ñu doog koo def jërë leen jëf.